bismillahi rahmaani rahim al yumnu wa xayri sadadi fi xayri shikri xataa bi madadi xat faaxa shikru shikru ahadi al maliki al mukarrami muntahadi faasa saxiir bil quraani min dadi najaa bi maa yuddiimu xayru sadadi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di leen siyaare di leen jox seen wàcc waaye leen balaax te di leen ko baal ginnaaw bi nu sante yàlla di julli ci sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di sant seexna ahmadul xadim noo ngi siyaare sëriñ Amsatu Mbàkke ak mboolem mbokkam yi fi nekkal yépp mm-hmm. di sant yàlla bu baax nag ci teewaay bii nga xam ne yàlla may nañu ko nu teew ko fi ci jotaay bii muy jotaay boo xay ni dafa làmb yu bare bare bari li mu njëkk a làmb mooy njariñul àdduna loo xay ni doo tàggoo moom ba kër ngay faatu xay ni boo faatoo suñ borom booleel ak Serigne Touba nga am àjjana ëllëg kooku nag kenn ko may moo di Cheikh ab Lahad Karam Mbacke moom sëñ Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Touba kon noo ngi sant yàlla bu baax a baax sëriñ bi nee na yéen mbooloo mi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi sant naa leen gërëm naa leen te di leen ñaanal yàlla li waral loolu mooy bis bii dama am lu dul moom ndax ki du boole ci Serigne Touba moo ko waral kon su ma ko wootee saw jant gi nga xam ne fi la suñu borom bogal ma nekk fi ñëpp bàyyi seen soxla yëpp nga wuy si ma nu ànd liggéey bi béy ci fii nee man sant naa leen gërëm naa leen te di leen ñaanal yàlla itam nag ndax sëñ Ablaye wax na ni. nit day bu la defalee benn yiw yow mi mu defal yiw woowu yett war na la ci moom mooy nga sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla kon sëriñ bi nee na sama cant ak am na fu mu tàmbalee waaye amul mu yem sama cant yéen am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ma dina xamal ni nun de ay taalibe rek lañ war doon bi nu ko doonee ba noppi ne sëñ Ablaat waxam na ni murid saadix la ñuy doon kon nun danoo war a fexe ba dooni saadix saade nag yomb na lool ci jamono jii nu toll waaye ak a jafe yett nag dina tax a doon saadix mooy diglu ndigal dégg ndigal jëfe ndigal loolu de murid saadix ku ko def rek mën ngaa saadix lépp loo xam ne yàlla digle na ko nga di ca nekk lépp loo xam ne yàlla tere na ko nga bàyyi ko jëmm jii ni yàlla jox nag dañuy ñaan yàlla ci barke Sëriñ Amsatu mii nga xay ni mooy kilifa am mu ñaanal nu ko ak sunu ñaan nu boole ko yàlla dimbali nu may nu ko def ci moom ay kéemaan yu rëy rëy rëy mu dunda dunda dunda dund bañe naa dunduk seex Abdou Lakram Mbàkke gi yéem na doomu aadama yi loolu kéemaan lay doon ñaan nañ ko suñu boroom lu mu yàgg yàgg nag noo ngi ñaan mu ànd ak wér ndax nit kat bu gudd bu wéree gudd fan am wërsëg lépp lu baax lu nekk bu ko wutee man ko am kon ñett yooyu dañ koy ñaan sëriñ bi mu wér gudd fan am wërsëg ndax wërsëg woowu mun a ñàkk ndax Serigne Touba maamam wax na ni ki nga xam ne dafa am xéewal di ko xéewloo di sant yàlla nee moo gën a màgg ki nga xam ne daa ñàkk ba noppi muñ ko. ndax muñ ko kon ñàkk pexe la kon neen yàlla jox xéewal gu nu mën a xéewloo di ci sant yàlla ba nu ko nu ko war a sant mën ko ñu sant ñun ñëpp nu ñu ko ñaana Serigne bi ci xéewal génn suñu borom jox ba mu nekk fii yitteem yëpp booy doomu aadama yi ginaaw bi mu yittewoo ba noppi. loolu muy tëwoo doomu aadama yi nag xéebalul kenn soxlaam ca saw jant ni mu toll te benn dëkk boo xam ne nii kenn du ni sëñ Abdou Lakram mosu faa amul dëkk bu toll ci saw jant gépp bu nekk ci biir saw jant bu sëñ ab Lakram téewul amul te soxlay doomu aadama yi rek moo ko yóbbu dinaa bi mu soxla diggante ma boromam ba noppi kon sëriñ bi moom mun na koo fay lu waay wax naa bisub sëñ ba lépp sëñ bi moo xeebalul kenn soxlaam xeebalul kenn sa bis ba moo tax kon bu amee bis maanaam ñëpp dañu ñëw duñ ñu ceeba mi tax na duñ ñu yittee duñ ñu dara ndax ceeba mi li muy réer li muy baax lépp sëñ bi leen ko gënal mm-hmm. kon day noo ngi ñaan te gàttal ndax maanaam guddal matul waaye nag boo gàttalee mën ngaa bañ a juum yaaram yi dañuy wax ne xëyru kàllaama xàlla wa dalla